<clears throat> Assalamualaikum mbokku internet yi Iba Kane TV ma maa ñëwaat ak yeen di leen ziar di leen ñaanal guddu fan wër di baal ñëpp ak di baal ñëpp yang yalla ñu yalla may ñu fekke ko ay at yu bare bare tam xarit bi ñu génn kenn bañ ko wuté sama bokk séeréer yi yaakaar naa bi gaañu leen trop trop trop waaw mang ngi leen di ñaanal guddu fan wër bokk internet yi bakkan tv yëpp ak bépp mboolem jullit ak képp koy bëgg yi bakkan tv maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wër donc tey dama ñëw di waxtaan ak si ñaari mbër yi nga xam ne ñu bëri woon le 7 août bi passé si diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye mu nekkoon combat boo xam ne nag arène nationale la am ñëpp xam lu fa xewoon mooy Balla Gaye 2 daan Gris ñu taxaw tuuti si Gris Bordeaux parce que Gris Bordeaux war nañu taxaw am benn taxaw seetlu si avenir am si làmb man mun naa wax ne avenir u làmb Gris Bordeaux compliqué na trop trop trop parce que nga am 43 ans de 25 ans de carrière am si 11 victoires ak sa dixième défaite nga nga nga concédé sa dixième défaite yaakaar naa sa avenir compliqué na day compliqué si sa làmb parce que mun naa wax ne Gris Bordeaux bu muy dem di bëre ak Balla Gaye 2 Euh, dislocation boobu mu demee baaxul woon si moom parce que ngay bëree mu am coow sa diggante Tapha Gueye ah, ba jour boobu gis ñu Tapha bi nga xam ne yàgg na ànd ak yow loolu day am lu bari lu mu wàññi soo daanee am na lu mu lay yokkal mais boo daanoo tamit am na loo xam ne dafay am ay conséquences conséquences yi mooy nii daanu nga contre Balla Gaye sa diggante ak Tapha Gueye ñagas na trop te warul parce que yaa remplacé Tapha Gueye tey say fans am na ñu lu leen naqari trop trop trop si défaite bi nga am contre Balla Gaye 2 cette défaite bi dafay nduroog Tyson bu muy jël défaite contre Balla Gaye 2 en 2011 ñu amoon ñoom tamit naqar bu trop Gris Bordeaux gis naa ne daal sa avenir compliqué na si làmb trop pour nga ñëwaat si si si fi nga nekkoon boo wonee ne yaay troisième tigre de Fass parce que troisième tigre de Fass bi du loo xam ne dañ la xàllil yoon rek de solal la mu samandoor boobu déedéet kenn xàllu la yoon parce que da ko prouvé woon au départ da ko prouvé woon les années 2000 bi ngay daan fii Eumeu Sène ak du Lac de Guiers un donc ba Bombardier jamono yooyu da nga nekkoon si benn dynamique de victoire nga nekkoon un Gris Bordeaux bu saf-saf un Gris Bordeaux bu agressif un Gris Bordeaux boo xam ne vraiment euh, boo leen ñamantee rek nga xam ne vraiment mbër dëkk nga nga nga kii mais depuis quelques années gis nañ sa carrière dafa décliné dafa décliné considérablement nga jël ne depuis 2012 ba 2022 si 10 ans yi booy xool ñaari victoire nga si am nga daan si bàyyi ma ñoom daan si Tyson en 2015 2015 ba 2022 7 ans yoo xam ne amoo amoo si ndam 2018 ba 2022 benn yoon nga nga si takk sa ngeen bu mooy keroog je pense que loolu euh, euh, dafa néew trop pour mbër bu toll ni yow dafa mbër bu toll yow mbër boo xam ne tey Fass yëpp la ñu yaakaar Fatick Medina yëpp yow la ñu yaakaar Ndakaar euh, pencee ñaar yépp ci yow lañu yaakaar donc waroon nga am taxawaay bu gën taxawaay bi xomba ak ak Balla gay 2 ñëpp gis nañu si xew combat bi presque si ay deux minutes rek wane nañu ñaari mbër yëpp dañu sond si ay deux minutes ñaari mbër yi war nañu dañu sond ça veut dire que ñoom seen entraînement xaw na des que ce soit Gris Bordeaux que ce soit Balla Gaye 2 parce que war doon nañu war lu ëpp loolu donc Gris Bordeaux avenir am li mu la wax compliqué na trop trop trop donc pour mu relancer il faut mu am fit may change xale yi xale yi nga xam ne vraiment dañu dangereux ku mel ni Sa Thiès c'est un lutteur hyper dangereux ku mel ni Reug Reug c'est un tamit hyper dangereux am na yeneen xale yoo xam ne tamit ñoo ngi si ginnaaw bëgg nañu bëri ak kii di ah, ah, Gris Bordeaux Gris Bordeaux combat mag guy gi peut-être war na mun a nekk ça dépend si promoteurs yi si ça leur intéresse guy gi Gris Bordeaux combat la Lac de ñu ngi doon wax combat ma Gris Bordeaux mais ak li Gris wone ak Lac de Guiers 2 si lu mu toogee daan Boy yaakaar naa te Gris Lac de am na feneen fu muy xool fu dul bu dul di di bëriwaat ak euh, Gris Bordeaux bi nga xam ne doomu ndeyam la Balla Gaye bi moom la daan donc gis naa ne un combat Gris Bordeaux Lac de waxuma du am na mais dina jafe un Gris Bordeaux Tapha Tine nag nit ñi ñoo ngi ko doon coow avant combat bi mais pour mu amaat dana jafe trop parce que Tapha bu leen fàtte ne moo ngi toog si ay ndam dafa daan dafa daan guy gii daan bi nga xam ne mooy Yékini Junior mujjee daan bi nga xam ne mooy Boy Niang 2 en 2000 euh, le 19 décembre 2021 bii passé mu daanoon Boy Boy Niang 2 donc moom tamit bëtam mu ngi ko teg si ay Ama Baldé si ay Modou euh, Euh, si Eumeu Sène ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci kaw am naa ne Tapha Tine la gën a bëgg tey bëreel que delluwaat ginnaaw bëre ak euh, Gris Bordeaux mën na nekk nag ça dépend si combinaison promoteur parce que promoteur yi ñoo génnee seen xaalis mais amateurs yi tamit am nañ si am nañ si wàll donc y a aussi euh, gis naa ne tamit Gris Bordeaux pourquoi pas mu may revan chance ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione bëre woon nañu le premier janvier tey ñoo ngi si 2022 10 ans après est-ce que tey jotul Gris Bordeaux may revanche ki nga xam ne mooy bàyyi ma yoon ñu bëri ñu leeral ñu xool ñoom ñaar euh, kan moo si euh, dem saako yi définitivement parce que ñoom ñaar ñëpp ñu ngi lang Gris Bordeaux mu ngi lang bàyyi ma yoon mu ngi lang donc combat la boo xam ne combat de de de relance si ñoom ñaar donc Gris Bordeaux na nga xam ne sa avenir compliqué na trop yow li la waral mooy de retourner à la base à la base mooy. fexe nooy àndaat ak Tafa Gueye Tafa Gueye cerveau la Tafa Gueye monument la si làmb Tafa Gueye c'était le plus grand technicien de la lutte sénégalaise c'est pas pour rien mu bu muy nekk si digg ndëndam ah ah vraiment mu nekkoon ndaanaan pire ba nga jël tey ànd ak moom si ay omba yu baree baree bare Gris Bordeaux Tapha Gueye la woon Gris Bordeaux war nga fexe tamit retrouver toute la grande famille de l'écurie Fass ñoom Moussa Gningue pourquoi pas pourquoi pas tey nga seeti Moussa Gningue ngeen toog waxtaan mu lay xelal Moussa Gningue lu mu mënoon du ko dugg si àll bi daw fii de gauche à droite avec âge mu am permettre ko mais ak conseil am mën na la dimbali lu bëree bëri Gris Bordeaux dafaa ngeen nga àndiwaat ko sa côté mën na la dimbali bu ànd dimbali lu bëree bëri bëri quelque rectificatif la la laaj rek mooy c'est-à-dire la grande famille de l'équipe ñëwaat autour de l' essentiel parce que combat 7 août bi mooy sa doigt ay sa père mbay gi génnoon si le 7 août nga ñëw daanu si le 7 août je pense que du neex say fan jour boobu combat boobu da nga waroon génne victoire pour rek déjee ko nga xam ne mooy père mbay gi génnoon àdduna le 7 août 2021 à l'âge de 75 ans donc avenir du Gris Bordeaux vraiment avenir bu compliqué la bu compliqué la soit mu jël may chance xale yi wala mu may revanche bàyyi ma wala guy yi ah pour mu mun a jéem a relancer mais pour mu ñëwaatal loolu la laaj ak liggéey bu méttee méttee métti moom tamit pour mu ñëwaat li ko desee pour mu essayer de terminer par la grande porte jël sama ndoor pourquoi pas jox ko rakam Gris 2 jël sama ndoor pourquoi pas jox ko Forza jël sama ndoor troisième tigre de Fass bi pourquoi pas jox ko Serigne Ndiaye 2 ñett ñooñu ñu xool kan moo si nekk quatrième tigre de Fass donc Gris Bordeaux loolu la ñuy xaar moom mooy mu defaruwaat bu baax a baax a baax parce que mbër munoo ko wax na bàyyi làmb kenn bu wax mbër mu bàyyi làmb parce que tey mbër mi du yaa koy jox dépense du yaa koy jox lu muy jor euh, yóbbu këram mbër bi buy yeewu di entraîné ji yaa ngi tëdd di nelaw mbër bi buy jël ay ko digg géew bi yaa ngi si tribune yi di critiquer di wax donc euh, kenn du wax mbër bàyyi mbër mi bu demee ba xam ne yaramam nangootu rek moom dina bàyyi boppam donc Gris Bordeaux comme que yaa ngi si arène bi ñu ne yaay troisième de Fass da war a am taxawaay bu mat sëkk bi nga war a taxawee taxawaay boobu mooy lan mooy nga jël flambeau écurie Fass gagné say combat yi des terminé par euh, pour sortir par la grande porte comme ni ko Tapha Gueye defee comme ni ko Mbaye Gueye defee donc loolu la xaar si si mu ñëw Gris Bordeaux quant à Balla Gaye 2 nag ah yàlla may na ko victoire si kaw Gris Bordeaux mais lu baree bare décelé nañ ko si si si si Balla Gaye par rapport à son physique physique bi gis nañ ñu mu demee par rapport à sa tactique de combat parce que Balla Gaye 2 euh, xamee wuñ ko woon lii si ñaari combat yi kon Bombardier ak Gris Bordeaux wane na si ay faay li ko waral yëpp mooy côté physique bi la war a gën a liggéey Balla Gaye 2 il n'a que 36 ans 17 ans de carrière la def Balla Gaye 2 tolloogul foo xam ne dañuy wax ne Balla ngay 2 jeexal na si làmb loolu du yoon parce que Balla Gaye 2 si sept ans nga nekk fii def fi lépp lu ma waroon def ba nekk fi roi des arènes je pense que euh, da nga comme tubaab lu ñuy wax te a dormi sur tes lauriers da nga nelaw lu baree bare moo tax lii arrivé Balla Gaye 2 li nga mën li nga capable ëpp na lii euh, bi ngay ravager arène bi entre 2010 ak 2012 ñëpp fii la leen fekk say fans di kontaan nga daan fi Modou Lo daan fii daan fi Modou Lo daan fi ki nga xam ne mooy Tyson Baboy Tapha Gueye ñooñu ñëpp nga daan leen yaakaar naa ne combat la sa avenir yaa ngi ko téewoon say loxo ba nekk fi roi des arènes en 2012 nga daanoon fi Yékini donc gis naa ne Balla Gaye 2 li may dëgg yenn gëstukat yu làmb yi di wax ne wala yenn nit ñi di wax ne Balla Gaye 2 il n'a plus rien à prouver moi je ne suis pas d'accord Balla Gaye 2 il a trois défis à relever boo nekkee sportif toujours tu as quelque chose à relever tant que y es si arène tant tant que a ngi football tant que a ngi basket tant que tu es compétiteur, il y a toujours des défis à relever Balla Gaye 2 il a toujours des choses à prouver Balla Gaye il a trois défis à relever premier défi bi le le er janvier 2023 moom Boya Boy a 2 combat la boo xam daf ko gagner pour relever défi bi nga xam ne 2 dafa gëm moom mun na daan ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 parce que boo Niang 2 moo daan rakam am Sa Thiès tugg si famille yi Sakho daan Sa Thiès donc bu fa duggaatee daan Balla Gaye 2 Boy Niang 2 dina am mooy boo xam ne dootul fay ba ilaa yow mi di donc euh, Balla Gaye 2 défi boobu rek ko war a relever moo tax Balla Gaye 2 n'a pas droit aux vacances yow amoo amoo droit vacances yow say vacances mooy la boo noppaloo deux jours trois jours del euh, xoole say sëriñ yi la ñaanal ainsi de suite nga takkaat daal yi dugg si dugg si àll bi nekk si duni ñàkkanteeg moom bu jaree voyage nga voyage parce que combat bi nga jëm ak Boy Niang du yomb parce que xale ngay bëreel xale boo xam ne yaa ko mag Gris Bordeaux yaa ko mag mais Gris Bordeaux da la dominer dès si bagaar bi que Boy Niang 2 yaa moo la gën Boy Niang moo la gën a féete xale te Boy Niang 2 dafa gëm neen mën na laa daan donc loolu rek war nga tax reyante pour say fans fans yi nga xam ne yow la ñuy nooyee matin midi soir Balla Gaye 2 la ñuy nooyee ngir ñooñu rek wala ngir say noon rek war na tax nga reyante bu baax a baax a baax ba nga xam ne combat bi nga jëm le premier janvier 2023 que jëlee fa ndam mun a daan Boy Niang 2 pour rétablir les pendules beneen bi mooy sa deuxième defi bi ngay relever mooy sa diggante Eumeu Sène Eumeu seen da la dóor 2 donc boo leen bëree troisième fois te bu ma seen moom tamit moom dafa gëm ne da lay dóor 3-0 te bu la dóoree 3-0 moom kooku moom moo la mën ku la daan ñetti yoon moo la mën ku la daan benn yoon waxuma la daan ñaari yoon daan ñetti yoon moo la mën donc yow Balla Gaye 2 da war a fexe daan Eumeu seen réduire score bi mu nekk 2-1 ba nga xam ne même bu Eumeu Sène bàyyee làmb ñu xam ne yow mës nga daan Eumeu Sène mais bu Eumeu Sène bëree ba bàyyi làmb daanoo Eumeu seen ah yaakaar naa yow moom say fans dootuñu wax si kanamu fan sa Eumeu Sène moo tax deux deuxième défi boobu moom mooy loolu mooy nga daan Eumeu Sène troisième défi bi mooy jëliwaat titre roi des arènes dinaa ko 36 ans troisième euh, nekkiwaat roi des arènes comme ni nga ko waxee pour nga am ko nag liggéey bu méttee métti moo la war liggéey entraînement bu métti dun yu metti contact yu metti école ba tour de tes frères parce que Balla Gaye de toll woo foo xam ne tey da ngay entraîner say euh, say say poulain yow dañ la war a entraîner nga am benn encadreur boo xam ne moo lay topp boo sondee mën a la continuer bu méttee mën a la continuer mais loolu moo la war ku mu toll ni entraînement bu méttee métti pour mën a jëliwaat titre roi des arènes parce que tiit roi des arènes d'ici euh, bu Modou Lo ak Ama Baldé bëree ba pare nañ xam kan mooy nekk prochain roi des arènes donc ça veut que su nekkee Modou moo daan xam naa ne boo daanee Boy Niang daan Eumeu Sène di nga bëgg dem jëliwaat Modou mu nekk revanche boo xam ne final euh, final lay nekk su nekkee Ama Baldé nag moom moo daan Modou Lo yéen ñaar doo leen bëre donc day nekk combat euh, pour nga jëliwaat titre bi il faut nga xaaraat ba Ama Baldé euh, ñàkkaat de roi des arènes te xam naa ne loolu ça va prendre beaucoup beaucoup de temps donc li may wax rek mooy Balla Gaye 2 il a trois premier défi bi battre boo Niang 2 deuxième défi bi battre Eumeu Sène troisième défi bi battre roi des arènes d' accord ma si ñiy wax ne mbër yow Balla Gaye de dina rien plus rien à prouver tu as beaucoup de choses à prouver à tes fans si sa carrière tant yaa ngi si làmb ji da am na looy prouver parce que boo daanoo rek critique yi bari si yow yaa mel noonu yaa ànd ak coow ya ànd ak jamono parce que nit ñi nee yaay lamb té véritablement yaay lamb parce que bo bëree mu neex stade fess bo touser mu neex loolu yow la ko yalla jóglal ton la bo xam dafa nekk ci yow mais pour nga maintenir ko il faut nga os comme ni nga osé won bi ngay ah, bëre Modou en 2010 wala bi ngay bëre ay baabooy jamono yooyu hein ah, c'est début sa carrière il faut nga nangou souffrir souffrir Balla ngay de nga wara nangou souffrir ngir say fans pour au sommet de la lutte sénégalaise parce que moi, wax la lenn yow Boy Niang 2 mënul combat boobu du yom. parce que Boy deux, 2 il va disputer ce combat devant son public fans yi dinañ ko pousser à la victoire donc combat beau parewul sur tous les plans sur le plan physique surtout mystique bi am solo mais sur le plan physique boo parewul euh, dina metti si au trop contre Eumeu sur le plan physique beau parewul day mettiwaat au pour jëli titre roi des arènes boo pare sur la plan physique pour nga jëli ko tey métti si yow donc loolu laa amoon lu may wax si eh, Balla Gaye 2 bi nga xam ne def na lu ne si làmb mais il a beaucoup de choses à prouver encore une fois de plus parce que 36 ans rek la am jeexalu ko dese na ko si arène bi dese na ko Boy Niang 2 dese na ko Eumeu Sène Gris Bordeaux moom nee naa leen avenir am c'est compliqué très compliqué même très compliqué parce que phase mu toll nii en ah, tasaaroo tasaaroo na trop Tafa Gueye nekk fële xam nga euh, Gris Bordeaux àndul ak moom loolu ñu rafet rafetluñ ko te Gris Bordeaux pour mu sortir par la grande porte il faut mu bëri ay ñëw guy gi ñoom bàyyi ma ñoom wala ñoom Sa Thiès wala ñu Reug Reug mais ay lac de guerre de Tapha Tine yaakaar lu mu am bu amee tamit lu may jaaxal la donc Gris Bordeaux n'a plus le choix avenir bu compliqué la am na jëli ay guy gi jëli bàyyi ma ñoon ak yeneen mbër yoo xam ne amateurs yi peut-être bëgg nañ ko ñoo xam ne peut-être sama bopp bu mu a bëree ak ñoom pour jéem a sortir par la grande part porte pour au moins terminer par une victoire parce que warul génnee comme Mohamed ndaw Tyson génnee ak ay ak ay défaite Gris Bordeaux bu bañee loolu il faut mu jël combat liggéey si bu méttee méttee méttee pour jël ko donc loolu laa leen andiloon tey si diggante Balla Gaye 2 ak Gris bi nga xam ne ñoo bëre woon le 7 août bi passé di leen jox rendez-vous prochainement si beneen numéro mais maa ngi jaajëfal ma internetu Iba Kane TV yëpp ak abonné yëpp maa ngi gis abonné yi maa ngi gis critiques yi euh, incha allah dinañu gën a góorgóorlu parce que si critiques yi la ñuy gën a mën a évoluer donc maa ngi góor góorlu maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ak salaam dinañ jox rendez-vous prochainement si beneen numéro.